أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والاه ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نيجي ngi ci siraaju salik mu ngi bëgg a wax ponki aji arkaanu ponki aji arbaatun ñeent la حرمالم पंक बिंजे किसी पंक हजी मई हरमल हरमल मई पंक बिंजे किसी पंक हजी वो सुन न नहीं वो सुन संग गो खमने यू सलू देफ को जो करे हरमल का के हज गोरलाम जिगेन दिने दफा मेंबर बगरें मुसंगो संगो गिनक kom sangu janaba la ni ñuy sangoo janaba rek nonu lay sango bu sango ba pare nag mu door mana xarmal mu door yene sango gi ak yene gi nak fo am lu dox sen ndax bu sango ba pare Dari ko may musol musim yere yu ñaw yi maanaam musol tarax lay ak lambay takay bagasam ak yi demee non doona harmal kon bu sango ba pare dana door a xarmal dégg nga talbiyatun ak wax la bayka ci sunnaayi xarmal la bokk muy nga wax la bayka laahumma la bayka la bayka laa sharika laka la bayka inna alhamda wa niamata laka wal mulka laa sharika lak loolu mooy la bayka la bayka allahumma la bayka dafa war moom wax la béykat lu war la wa sunna war la wa rakaata ak ñaari rakkaay wër ya ku wër kaaba ga ba pare mu julli ñaari rakka ci gannaaw maqaama ibrahim loolu dafa war julli ñaari rakk yi rek moo war waaye julli ko ci gannaaw maqaama ibrahima moom luñ sopp la yaa ngi may dégg wala libaas ak koddaay sopp nañ ci ku wala boog Euh, sunnaal nañ ci ku xarmal mm-hmm. mu sol yére yoo xam na ni dégg nga <coughs> du wër cëram sol sol yére yu wër cëram sax moom it dafay war rek ridan mooy làmbaay wa azr ak tëraxlaay wa naaxal ak dàll wala madaas ak déggukaay mooy dal rek mm-hmm. kon ku kuy xarmal na njëkkee sangu sangu googu sunna la la bayka gi moom waru gar la julli ñaar rakk waru gar la dindi yére yu ñaw solli làmbaay ak teraxlaay ak ñaari dàll cerax yooyu loolu war gar la wala ma am naa ba mu jeex laal kalaamu ala surutil xaj si sàttaay xaj akasa commencé na yatakallamu di wax ala arkaan yi ci ponkaaj waru kunu ponk maa mooy la xam ne kaane nekk na daa xelan di dugg fil maahiyati ci dëgg-dëgg mbir mi ay alxaqiqa ci dëgg-dëgg mbir mi mm-hmm. ponk mooy la xam ne ci mbir mi la bokk wa sartu sart nag maa moo ne xam ne kaana nekk na xaarijan di génn xan xaa ci dëgg-dëgg mbir mi moo tax sartaay julli bokkul ci biir julli gi waaye ponk julli mooy farataam ci biir julli gi la bokk wali daali moo tax xaddama jiital na eh, ponk yi alayha ci sart yi dégg nga ngi kon xaddama jiital na eh, xaddamaha dégg nga jiital na eh, sart yi alayha ci ponk yi wa axara mu yéexe raar kaana ponk yi fi nal mii ci way wi ba nga xamee ne sart moo njëkk ndax moom balaa ngee dugg ci mbir mi moo tax sart yi tax nga war a aji moom la njëkk jàngale démb door see teg ponk yi ndax ponk ci biir aj la bokk fa qaala mu ne arkaanuhu ponk yi jamoo ruknin bi maanaa al fard ponk mooy fard farata rek arbaatu ñeent la yéen ñoom arbaatu ñeent lañ waalam xamal ana rukk na ne ponk fil xaj ci xaj bi xilaafil waajib bi bokkut ak li war xaj moom buñ ne lii ponk la ak lii lu war la bokkut li am na rukk na ndax ponk maa yafsulu mooy yoo xam ne dana yàqu yàqu bi tarkii ci bàyyi ko alxajju xaj wala yéen jabiru du jàngu bi dammi ci deret ponk mooy loo xam ne boo ko bàyyi xaj gi yàqu mënoo rey gàtt mu remplace ko wala waajibu waru gar nag ci xaj maa mooy laa xam ne yaxrumu dana xaraam tarku bàyyi ko ixtiyaaran ci tànn lu buñ la waxee lii dafa war ci xaj waaye du ponk soo ko bàyyee te yaa ko tey def nga lu xaram da ngay am bakkaar waaye wala yafsulu du yàq alxaju xaj bi tarki ci bàyyi ko boo ko bàyyi du tax xaj gi bal li fi nekk yéen jabiru day jàngu bi dammi ci deret wa huwa liñ namm ci deret jooju al moo di hadiyu kon <laughs> lu war caaj war a gar caaj mooy loo xam ne ni boo ko bàyyee te yaa ko tey am nga bakkaar ko bu dee amoo ci bakkaar waaye nag du tax ak gi boo reyee gàtt rek mu baax fal awalu bu njëkk bi ixraamu mooy xarmaalam ponk bu njëkk mooy xarmaal ay awalu arkaani xaj yi li njëkk ci ponki haji yi al ihraamu moo di xarmal woo moom anniyatu mooy yéene bil qalbi ci xol bi an yaqsida te mooy mu jublu bi qalbi ci xolam adaa faridati xaj joxe farataay xaj ponk bi njëkk ci xaj mooy xarmal xarmal mooy nga yéene def aj gi rek farataay aj gi nga yéene ko def wen talafasa nem tudd na ga fa on lu dagan la waaye wal afdul li gën tarku mu bàyyi فسنا هنا أجيك فرطه لو كلمة رك وياي بكو وقت س لامنوي باهنا وياي جنوس إلا إذا كان لو منك موسى سنداج جح جحل فيت الله فسدنا تدو بياج موم ليتحقق عن المهول من إحرام جحر مرام بفك كيف في جح جحل دي سكسا كل بري كوك موم نا تدو حرم مرام مانا موي كوك هم نفك تدو كي كلمة دال ده في جابون يين ورسخ كوك نك وحرك نجد جح جحل كوك دين مور كنا حرمانا دين نعم يا خالد فك شلا من رك pour ñoom defuñ dara wa sifatu niyyati melo yéene allati gi nga xam ne yaqsiduha dana ko jublu bi qalbi ci xolam aw yatalafazu wala muy wala muy tudd bi ci moom yéene gi nga war a fas sa xol wala gi nga war a tudd mooy nga wax ne nawaytu yéene naa alxajja xaj wa ahramtu xarmaal naa bii ci xaj lillaahi ñeel yàlla taala kawe na danga naan naa xaj xarmaalal naa xaj yàlla walaw ñeel na ko ay ihraam xarmal mii xaataane ñaari barab kuy xarmal am na ñaari barab yu mu war a xarmalee zamaani yun barabab jamono wa makaani ak barabab barab fa zamaani yu jamono yebtalu dana commencé min tuloy fajri càqar ak fajar awwali ci bis bu njëkk min sawaalin si weeru xori weeru koor wi bu jeexee dégg nga fan bu njëkk ci weeru xori buy fajar ga di rek nit mën naa yéene ak ndax waxtu wa dugg na wayen tayi dana jeex bitul wayen fajri ca xarak fajar ay yow mën a asir ci bisab fukkeel ba min zil xijjati ci weeru tabaski buñ demee ba weeru tabaski dugg nga xam ne ni bisu fukkeel ba dugg na te mooy bisu tabaski ba buy fajar di jot kenn mënatut xarmal waaye nag soo xarmalee dana baax pour déwén la soo xarmalee avant weeru xarit dugg maanaam aj jamono ñu ko war a xamaa mooy xori digg ak juróom-ñeent fan yu njëkk ci tabaski waaye boo xarmalee avant baax na waaye dañ ko sib ndax boo xarmalee lañ aaye ku xarmal lañ la koy aaye teew aj bi ñëwagut daf lay sonal dégg nga hmm? woyen tey dégg nga wal makaani yu këjug barab nag an waa ay xeet la barab yi nga war a xarmalee ay façon la wasiyaati dana dikk alkalaamu wax ci moom xen da zikri miqaat bu ñu tudd mi xëy bu ñu tudd barab yi ñu war a xarmalee danañ wax ku nekk ban barab la war a xarmalee mm-hmm. wala li ixraam ñeen la xarmal sunanun ay sunna wa waajibaatun ak ay waru gar wa mustahabaatun ak ñu sopp yaati dana dikk alkalaamu wax aleha ci moom mufassalatan di yuñ teqale insha allah nim soom ne yàlla taala kamana mm-hmm. xarmal am na yoo xam ne sunna la ca am na yoo xam ne waru gar la ca am na yoo xam ne yuñ sopp la ca mm-hmm. danañ ko wax وسن غسل يوصل أي ويسن ودرين سنال للمحرم نيال <laughs> كو حرمال كان نك ذكرن دي غور أو أنسا ولا جيجين ولو حائضا دي لكو هم برغلا أن يغتسل مسنغو كغسل الجنابة كم ني سنغو جنبا لولا لي سنغو في صفة تي ملو مانام نيو بوك نين ديفه بما ين تي ندوخ من جويل كون ندوخ ملاب ngay sango xuslan sang goo xam ne mu tasilan day jokk bi ixraam yi ci xarmal gi sang goo xam ne balaa yàgg nga xarmal lañ ci nam waaye nekku ne da ngay sangu génn rek xarmal wal lu teqale ak yéesi bu néew bi xadri lu ci siyaa bi lu toll li nga mën a sol sa yére so wax gi mu wax sol yére nag hmm, <laughs> xaw naa kii parce que moo naa wax rek dégg nga ci kem loo xam ne da si mën a terex laayoo sa yére dëgg la lii lu solo sax waaye waaye nag waroo sol yére yu ñëw nga bàyyi xel مشدرها لك لو من تكسى بغاس ونحو يأمين روي مغتفر من جيغل ما نعم سوفك دابا حرمال دابا سانغو باري جن سول يريم تك بغاسم ما نعم لخصا يلا بغو سول يريم تك بغاسم دور يني دار نيكوسي ديغنت سانغو كي حرمال كي سسلو وني والي تاخلي كو برو ويستحب صبنا للمحرم نيل حرمال التنفس مسد qabla ixtisaar yi njëkk muy sangu nu muy setee bi ay xallimata mooy mu dagg azafiro ay weyam waaye xusa mu jemp shaari boobu naanoom la jemp naanoom mooy na wàññi karaw yi nga xam ni moo wër la nga xam ne nii moom lay naane yu wëttu ñi daal dégg boo yaxliqa mu wat aanatahu poqtaanam wayanti fa mu buddi shaara ibtihi ibtayhi karaw ñaari maa ngi waxaanatu poqtaanam naqam lay firi wayanti fa mu buddi caara ibteyi karaw ñaari poqtaan yi wayu rajji mu jaraat caara rasi karaw bopp kii xarmal bëgg nañ mu set balaa muy sangu avant sangu gi set moo ko jiitu set mooy lan mooy na dagg eh, wey yi wàññi naanu yi wat karaw naq yi buddi karaw poqtaan waaye su fekkee mën nga koo buddi xam nga karaw poqtaan boo ko watee dafay gaaw a sëq te foofu bëgguñ muy sëq moo tax buddi lañ bëgg mais nag bu dëgëree ba nga xam ne boo ko buddee da ngay gaañu foofu wat rek moo ci mën dara wala yaaxle xoo bu ko wat karaw bopp moom na ko peñe rek waaye bu mu ko wat in kaan dam nekk na min alal xelaaq si ñooñ wat bu dee dañu moom seen aadama mooy dañuy wat bu mu watu ibqaan ngir desal li chance ñeel cugu man am tirim tirim tuuti ci xamal ko bu nekkee fii muddati ihraam yi ci diir ak xarmal gi tuuran gudd fala baas di rek xaay bir xilaaq ci watu xabla niyeti njëkk mu yéene lees tarixa ngir mu noppalu min daruratin ci lor ga kon mën naa am karaw gu bëgg da koy déranger bu dee nag moom ba muy dafa teel a xarmal ah, tey bu xarmaloon ci weeru sawaal balaa mu xaj dana yàgg de kooku dañ ne ko da ngay xaar avant ngay yéene xarmal si ngay watu mm-hmm. avant ngay xarmal watul mën ngaa watu kon buy buy wat waxtaanee rek naqeeg yooyu sama naa watu parce que boobu xarmala ko ndax ba pare sa yére moo kon na watu avant muy xarmal ndax kat karaw gi diir boobu yëpp daf koy sonal xawloo waxam talbiyatun wax la bayka yaa ngi mas mu yut la bu danañ mu neen mu xarami ci kuñ kuy minal muhrimi ci kuy xarmal talbiyatun wax la bayka muttasilatun bu jokk bi neetin ci yéene mm-hmm. la bayka gi na jokkul ak yéene gi bi anee na soobu fiyaa ci la bayka gi baadaa gannaaw yéene gi xaayilan di wax la bayka wuy naa la gannaaw bu mun huyoo allahu yow buur yàlla la bayka naa la gannaaw bu mun huyoo laa sharika déet bokkaal lakk di la ñeel la naa la gannaaw bu mun huyoo mm-hmm. inna alhamdu naka cant wa niamata xewal lakk ñeel na la wal mulka nguur laa sharika dir dir xit ak bokkaal lakk di la ñeel moo tax dem màkk ba pare ñëw gën a bon baaxul de mm-hmm. na ndax ngay wuyoo yàlla ba pare ñëw nekk ci lu naqadi yàlla mooy si moom la béyk googu waajibatun lu war la fi xaqil ci xaq mm-hmm. mënee wax dangaa war a wax la béyk mm-hmm. li yàq bi waxee moom dafa mel ni sunna la parce que daf ne wa sunna xuslun yuusalu talbiyatun wa rakaataani xam mm, talbiyatun dañ ko ànd fu ci xuslun rek waaye waaye talbiyatun moom warugar la fayn tarakaanem bàyyi na ko rësan ci cosaan waxut ci dara aw julle yow mi wala ëpp ci bis bi waxut ci labayk aw nis foo wala genn wàllu bis bi waxut ci labayk wajaba war naa rey ci moom xad yun xad yu maanaam bàyyi na warugar warugar boo ko bàyyi da ngay jël benn gàtt nga rey ko wayun dawu sopp na ixtisaaru xem fiyaa ci moom ala tarbiyati rasuli ci labaykaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy biñ jàngalee waaye moom al mutaqaddimatu mooy lu jiitu fi shari ci sarax bi xariban ci lu tuuti ci lu jege bëgg nañ muy waxee labayka googu waaye bu ko waxee beneen labayka baax na waaye nag bii moo gën wunu di ba sopp nañ tajdiduha beesal ko inda taxayurul axwaale jamono soppeeku mbir yi bu mbir yi changé na nga beesal labayka gi këru koo bi ki booy war da ngay da da da ngay da boo paree waree pare nga kon ne la béy ko wa nuzuulin muy wàcc wa soxodin wala muy yéeg wa xubuutin wala muy wàcc kuy wàcc xur ak muy yéeg dongo yooyu dafay ànd ak jafe goo xam ne doo ko mën a boole ak di wax mm-hmm. soo daggee su pare na nga continué war wante bàyyin ak bu yeewoo min noomin ci nelaw na continué aw xaflatin wala mu sàggan sax xaw koo fàtt na continué waaye nag mulaaqaati rifaax ak jamono bu mu dajeeg sette si mooy maas gi na lax la béyk wa ak mujjëg bépp julli na wax la béyk walaw naafilatin dina naafila la illa ilaa an yasila ba mu yegg masjida màkk jàkkaay màkk am na sañu ne bu dugg màkk rek dafay bàyyi la béyk dina yeggeegul yeggagul ci jàkk yi su ma yàq waa mu daal di dagg la béyk ga ilaa an yatuufa bu wër kaaba ga suuree ba pare bu mu wax la béyk day bàyyi la béyk gi waaye san ba dox safa marwa su doxee safa marwa ba pare nag su ma yoami doa topp mu baa maat la béyk ga walaw bil masjid yi doon si jàkk ja jàkk ja la nekk sax صدق سيد الصلاة مروسا نبا مال جاكين نبا مال لبيتك إلى أن يصلي ببمي جلي مصلى عرفة نقول غني جلي جا عرفة أي مسجدها مصلى لمشنا مسجدها موي جاكا عرفة نقول غمي جلي جا عرفة جا جاكا جا بعد الزوالي قلناه تصبار من يومها تبس عرفة تري باي لبيك كنا دوت كو وقت بمك خلامو أجوال بين اليوم أو إلى أن يسرع ولا بمي صوبرك في صلاة الظهر سجلي تصبار wala asri ak takusaan jëm an mu di leen boole wa xasran te wàññi leen def leen ñaar rek maanaam day bàyyi la bekk gannaaw bu doxee suba mara boobu muy julli tusubaar ak takusaan foofu ca arafa kama huwa sunnatu comme li nga xamee loolu mooy sunna mooy boole leen tusubaar takusaan da ngay julli tusubaar teg takusaan si sensé eh, nga wàññi leen bu nekk ñaar rek la loolu mooy sunna al muakkada bu fade illam tumkinuhu bu jàppandiwut ci moom asalaatu julli bi masjidi si jàkk ja bu dee mënoo julli sa jàkkaay arafa ga na nga julli foofu rek su ma laa yoawi doa ah, topp du la bayka yàlla bi ci ngir mi ba nuy aj gi pare woy taabu sopp nañ ay a tawasutu digg doomu fi rafi sawti mu jotal na ba muy eh, eh, cor xal ko baatam maanaam ba baat bi dee bu mu yëkkati kàddu gi ba cor baat bu maanaam ba baat bi dee dégg nga mel ni kuñ càtt dara wala yox fiiha bu mu ko nëbbu it daay sulaatu suma nga xam duñ dégg minu ci moom bu mu nëbbu labayka yelu ko ba nga xam ne kenn du ko dégg day wax lu yem rek dégg li anna shaira ndax jaamu yàlla yustaabu sopp nañ aljahru biral bihaa ci moom fi àqi zakari ci àqi góor wa yustaabu sopp nañ atawasutu diggu doomul fi zikriyaa ci tudd ko li nga koy tudd bu mu bëri bu ëpp na diggu doomu moom la baykat gi falaa yak sur bu mu bëri minaa ci la baykat ji dan lool xataa yudrikahu ba mu koy jot sax almalalu yokkat walaa yuqallilu bu mu ko néewal ji dan lool wayak fii dana doy fii fadli talbiya ci ngeneelu wax la baykat maa ruwiyaan sahlin bun saad lañ nettali jëlee ko sahlu bun saad radiyallaahu anhu qaal mu ne qaal wax na rasulullah yonent yàlla bi salla yàlla doole xew allah wala alayhi salaam wa maa min muslimin amul إلا لبا لما يوحنا لبيك عن يميني شنديجور ما عن يميني لنك شنديجور مجب وشمالي هي لنك شامويم من حجر تخير وشجر ولا قرب أو مدر ولا أقو حتى تنقطع بومي دق على رسوسي من هنا في جوجي في ومن هنا أكفره ها آه، كن يوم لين كون نسلا بيك غيرك أخرجوا جن نك الترمزي الترمزي أكبر وركعتاني أنيار ركي أيوة سندرين سنال أيوة taakidan sunu su feddee moom dafa wax sunna waaye tamit mun ngaa wax ne rek warugar la rek lil muhrimi ñeel ko xarmaal an yusalli mu julli rak'atayn ñaari rak xabla niyati nusuk ki njëkk mu yéene jaamu yàlla su ma yuhrimu topp mu xarmaal baada gannaaw waaw wax nga dëgg ñaari rakk yi mooy ñaari rakk xarmaal la ci namu yooyu moom sunna la dégg nga ma ñaari rakk ca nu mu tuddati ñaari rakk tawaaf yooyu mooy warugar mm-hmm. sunnaal nañ ci kuy xarmaal mu julli ñaari rakk njëkk mu yéene mm-hmm. su mu doo a xamaa waaye taabu sopp na alxiraatu jàng fii maas ñoom ñaar bil faatiha ci faatiha wal kaafiruun ak qul yaa fi ulaa rakk bu njëkk bi wal faatiha ak faatiha wal ixlaas ak fi saani si rakk ñaareel bi wa yaqumu mu taxaw maqaam wa yaqumu dana taxawee maqaamaa taxawaay ñaar rakk yooyu alfardu julli farata ka saati asri ni ko julli takusaan kawnu ak nekkam nag moom xarmaal googu baax na naafila te gannaaw naafila afdalu moo gën bu sangoo daal ba pare ba changé yéreem na julli ñaar rakk bu julli ñaar rakk benn bi faate xuyal kaafiruun benn bi faate xul ahad ñaar rakk yi mu nekk naafila mu door a xarmaal moo gën su ko neexee mu julli takkusaan ba pare daal di xarmaal mën naa ñëw gannaaw bu doon tey boo jullee takkusaan ba pare xam nga mën a faa julli si ñaar rakk kon mën naa julli takkusaan ba pare daal di xarmaal waaye nag ñaar rakk yi topp naafila moom moo gën ridan ak làmbaay wa izzatin ak taraxlaay wa naalin ak dàll yooyu moom dindi ko la fa war maanaam sol làmbaay ak taraxlaay ak dàll bañ a sol lu wër cër moom loo war a gër la wayu sanum danañ sunnaa lil muhrimi ñeen ko xarmal ida kaana bu nekkee zakran di góor danañ sunnaa libaasa ridaa in mu sol yére làmbaay yejaan dana ko defa laa katifay si ñaari mbaggam yi way zaaren ak teraxlaay yashuddu dana ko takk fi was ci si suuf ci digg ba maanaam làmbaay moo nekk ci kaw rek la bëgg a wax ترخ لاي بنك السوف بنا علي نك نيار دال في رجلي سي نيار تانكامي كن علي تكروت كوم نيار دالي تكروت ني خمو تكروت ني وغالب اهل مكه اك لي اوب سي وا مكه دالي سي راه ني سول كما خالكم نمو خول مداس اك دغوكاي موي دال دال يوي ني سول ويقوم دنا تخاو مقام ذلك النهر تخواي بوبل دال المسمات لن تدينا في السودان بالشبشب لو نم نيوكو خم دينا والقبقاب al mutaxasu ba da bañ jàpp mel ne xase bi ci bant ñoom bant la ñuy defaree daal yooyu seen xeetu daal la ah, am seen turi bopp yoon rafu danañ xam fi Soudan Soudan bil kap bil moom lañ koy tuddee maanaam daal ci rek daal yu warul cër rek moo xam karkab ak noo ko mën a tuddee daal ci rax rek comme daal yi ngeen xam mooy lu waru cër yooyu àddina bi ñoo ko bokkale lu warul cër moom warul cër rek mën nga koo sol lu warul cër na la ñuy lii mu wax ne sunna la nga sol làmbaay tiraxlaay la waaye nag sol lu bàyyi simmi loo xam ni dafa war sa cër yi moom dafa war moom moo tax mu ne su macc naa bu topp teet maa la nga xam ne yu xiitu dana wër aljasada yaram ba maanaam dafay war ci ko xarmaal mu teet luy wër cëram su teetee luy wër cëram nag foo mu sol loo xam ne ni tiraxlaay la wala làmbaay wala demee noonu na moytu lu wër cëram dégg nga loolu daf koy war waachir na nga màndargalal hadiya hadiyu isan jamono jooju wa xallida ta nga ràngal ko nga takkal ko caq pour ñu xam ne lii hadiyu la su fekkee nag la wala wala wala wala wala gëlëm dégg nga su ma ci naa bu topp teet maa yuxiitu la peeg naal jës yaram ay su may ji bu dana waral mu ci ko xarmaal ijtinaabu mu teet ay tarku mu bàyyi maa la nga xam ne yuxiitu dana peeg bil badani ci yaram lépp loo xam ne dafa wër yaram naka moytu moom may xarmaal kal xamis ni ki simis wa saraawir ak tubay aw baado wala mu peeg lenn ci yaram ka xaatimin ni ki jaaro fii baadi asaabi ci lenn ci baaraamam kooku wëru yaram bi yëpp waaye wër na baaraam <coughs> te baaraam ci yaram la wa subaatin ak kurus wa naxwa ak yu mel ni kurus fi woonu xii ci doqam jël kurus def ko sa doq wër na sa sa gi <coughs> aw xersin wala ab téere fi adadi ci përëg ba nga takk ci përëg ba na lu war na sa përëg ba kal xuju bi ni ki dégg nga kiiraay xam ni wala boog comme téere alati yi xam ne tuj la du danañ ko dóor watul ba suñu koy sol fi adadi ci përëg ci noonu mooy téere përëg rek parce la du dañ ko awar la ci namm di ko sol ci përëg yooyu daganut fay ji maanaam daganul nga sol ko ci fekk yaa nga xarmaal fay ji bu dana war ci moom atajuru du rafle min kulli muhitin ci lépp lu wër cëram kaana nekk na ay xaatatu wër ga bi xiyaatatin ci ñaw aw àqadin wala takk aw zirin wala bouton aw nasdin wala ràbb kal la ti ñoom seen xet la aw bi xëyriha wala ci lu ràbb li wër sa cër moo xam da nga koo ñaw wala da nga koo takk wala ab bouton la bu wan a wër cër nga def ko nga nga seere bouton yi wala boo dañ ko ràbb dégg nga mboolem yëri ñu ràbb daal mënuñ ko mënuñ ko kii dégg wala raabuñ sax raabuñ ko sax ñëwuñ ko takkuñ ko waaye moom naturellement noonu la mel nga nga nga sol ko daganut ka jil di ni ki der suli xa boo xam ne fees nañ ko bilaa chaqin ci loolu xotti xam nga bu dee xottiwuñ der bi génnee yàpp bi noonu rek loolu dafay boo ko solee dafay wër sa cër yi loolu it kenn ràbbut ko kenn takkut ko amul bouton amul dara mais comme que mën naa wër sa cër daganul <coughs> waxaa daal yi fi àqi zakari ci àqi góor la wala safiran di ndaw la di xale la waaye jigéen moom dafay sol lu wër cëram ndax awraam de islam dafa bëgg mu wëtt ko bu xaatu bu danañ wax danañ waxanteeg bi zaari gi ci loolu wëlli yu sabi kilifaay xale bi kilifaay xale bi moom la wax ne ko xale bi kat bu mu bu sol lu wër cëram fen taaka nem bàyyi na a tajaru da rafle wala li anzin dina leen ngant la wajabat war naa la ci mu alfidiyatu jotu képp koo xam ne nii danga sol lu wër sa cër danga nga leen jàngalal mooy jotu waaw man unsa waaye jigéen falaa ji bu dóor alayaa ci moom antata jarada mu rafle mu ne mu xeetu ci wër cëram jigéen moom mën naa sol lu wër cëram ba li fi nekk jus dana dagan laxaa ñeel jigéen lubsul xamis yi sol simis wa saraawi ak tubay wa sharaabi dégg nga ak waaw e, sharaab fii rijlihaa ci ñaari tànkami mooy yi ñu takk rek fal waajibu lu war alayaa ci moom kashfu wajhaa mooy mu uññi kanam ga wa kafayha ak ñaari tenqam yi faqat dong jigéen daal kanam ga ak ñaari tenq yi la war a dindi waaye lépp lu muy takk mën na koo takk kanam ga nag bu mu ko muur ñaari tenq bu mu ko muur lu dul loolu ci yaramam mën na koo muur te mën naa solit lu war ciram dégg nga waaye kanam ga ñaari tenq yi du ko muur wa haza yi mu xasalu moom lañ jëlee ci waxam wa ashara wa ashir alhadiya idan waqallidaa ay annahu naka li am ba am iza kaana bu nekkee maal muhrimi ànd nga jaxal maal hadiyun hadiyu wajaba war na alay ci moom dégg nga bu fekkee am na hadiyu goo xam ne daf laa war dégg nga nga war koo rey aw kaana wala mu nekk muta taween daji coobare wu bii hadiyu gi wala boog yow axal ma laaj ab hadiyu boo xam ne sa coobare bopp rek la fay noo naka moom sunu dañ sun naan la ko an yu mu defal ko mandarga mu defal mandarga hadiyu gi bu dee waaw iza kaana bu nekkee mene ibri ci gërëm wa yuqalliduhu mu defal ko caq ay jaanu mu def fii raqabati ci dox ga xilaasatan caq idaa kaana bu nekkee bari na tan di nag eh, di gëlëm aw baqaratan wala nag wa hada li maanaa mooy maanaa waxan jum wa ashir nanga nga eh, man argal alhadi hadi yu idan jamono boobu waqali daa nga defal ko caq awil ishaar wala nga defal ko mandarga mu ne awil ishaaru mandarga ani suqa mooy mu xotti sinaamal baxiri jege ñu <laughs> gëlëm ga bi sikkiin ci paaka wa nax wi ak nag yooyu mu ne jaay bi ay sat ci côté càmmooy la koy dagg ci jegeñ ba waqil am na ne min min ay man ci côté ndeyjoor la koy daggee min jihati raqabati commencé ca côté dox ga ilaa jihati mu aqiril baxiri ba ca mujj ak gannaaw génn ak nuutura di gëlëm ga xadara um um um mënatee um-, ni lu toll ni ñaari pool ñaari baaraam mu toll ñaari baaraam la cee dagg xataa yasila ba muy toq addam mu deraja bu ko defee nga bàyyi ko fa noonu mu nekk mandarga wano di ba sopp nañ tasmetun wax bisimilah baan yaqula si muy wax bisimilah bisimilah inda ishaari si jamono ji nga xam ne ci la koy defal mandarga day commencé si jegeñ ba rek ba ci mujjee géram gu mu xotti wax bisimilah wano di ba sopp nañ al jalaal waxoo moom jilaal boo ko xamut xirqatun sagar la boo xamante chequ danañ ko xotti wootu ñaal ñu koy def fi sinaamil bair yi si jege ñu gërëm ga ilaa an yasara ba mu feeñ al nga mu mm, mm, tuddi mandarga gi foo ci kawam suñ ko xottee ba nañ def benn nañ def benn euh, kii ne mu tuddi sagar ba nga xamee ni bu demee bu wér ba nga gis mandarga gi commencé di feeñ ci kaw jëlaal googu su ko defee nga dindi ko dégg nga bu nu di ba sopp nañ taaliqun alay ni takkal ñaari dàq dàll fii xilaadatil hadyi ci ràngal hadyu gi li yoon fa ngir ñu xam an naa ne moom an na woon moom hadyu hadyu la bu dee hadyu la sopp nañ nga takkal ko ñaari dal cerax pour ñu xam ne lii hadyu la wala li ba sopp nañ kaw nu xilaadati nekk caq ba min xablin ci buum mu taxisin buñ jàpp min xaj si si ñaxam suuf taxal faa ni ki ñaxam xal faa wana xawaa ngi niroog maanaam daal la ngay nga koy la ngay takk dàllee na nekk gàncax goo xam ne suuf la jóge laamin suufin bu mu jógee si kënt mooy karawu xarag yooyu wakkataalin ak katon maxaafata ngir ragal la àllaqa mu taq bi seen ci dara yu usihu bu koy lor dégg nga maanaam maanaam ko taqalee yu demee noonu mën na koo andil problème dégg xam nga yii dafa dëgër bu fekkee takk nga ko affaire bi rek mu lonk ci beneen affaire di xëcc xëcc ba mën na ci jaare sax dee waaye ñax yi dafa yomb dagg lu lonk rek mu dagg du am problème dégg nga waamal xanam waaye gàtt mooy xarek bay falaatu charu duñ ko mandargaal wala tuqal duñ ko takkal dara bal li fi nekk tumaytu dañ ko ràññale bi neeti ci yéene wala wasfi ak melo ñoom noonu lañ leen def yéene ak ak ak ak melo wala sarot danañ fi hadi ci hadi yu maa yu sarot fi lu deeti ci tabaski mi ne sinni ci at wasalaamata ak mucc mi ne bi ci ayib ëllëg yi nga xam ne noo dañ ko teree dana tere alisa mu doy waxtu taqlidi si jamono ràngal ga awe chanri wala mandargal ga lañ sartaal ci tabaski rek mooy na mat lu mu néew at bu dugg ci atam ñaareel mi wala ci gàtt la loolu mboolem li ñuy tabaskee rek dégg nga la ñu waxoon ci tabaski rek moom la ñuy wax ci hadiyu dégg nga ay bi ñu wax ne tabaski da ko war a da a mucc naka noonu it gàtt ba xadiyu da ci war a mucc dégg nga ak mucc mi wax yóbbu ci ay alati ci nga xam tum tam noo day tara ali sa dooy waxtu taqlidi si jamono waxtu bañ koy ràngal awli shar wala bañ koy defal mandarga jamono bi nga koy defal mandarga wala wala nga diko takal taqal ñu tudd dàll yooyu di ko xëy ñax jamono joju na fekk moom li bu don tabaski mat na tabaski fayn xala dinam ràngal naa hadiyu aju maayibun mu am aji ayib او قبل بلوغ sinni ولا njëkk جوت عرب تبسكي laa yu jiw ko doy zaalik loolu bu dee am na ayib ni ki tànk ba damm na dégg nga wala béjjën ba dangam damm di nàcc bu ko defee nag nga defal ko jamono bi nga gis tànkee dang ba pare nga takkal ko caq bi pour bëgg ko euh, def hadiyu du baax wala bu dee jamono boobu nga koy takkal caq bi pour def ko hadiyu matagut du baax waaw maa in temps ba waaye bu amee ayib baana taqli gannaaw buñ ko ràngalee fii maa yoqaladu ci loo xam ne war nañ ko ràngal awil ishaar wala bu ñu ko defaree mandarga ci lu ñu war a defar mandarga ndax gàtt yooyu kenn du ko defal mandarga fay noonu nag moom yi jiw dana doy su fekkee da nga ko defal eh, caq bi ba pare wala nga defal ko mandarga ba pare mu tànk bi door a damm ba léegi mën na mën na mën na hadiyu mm-hmm. in uridu al-islaam mastata'tu wa tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh